nga doyen ñu am un état boo xam ne ñu toog ñu ne les Layènes venez si capacité d'organisation bi ñu am. ak fédéré rek yu ñu am yëpp. ñu ne les Mourides seen capacité financière. Mm-hmm. pour ñu defal la levée de mm-hmm. xool Tijaan ni ñu amee xam-xam. Mm-hmm. si si kii si kii yëpp parce que comme boo demee si Alaaji Malik wala Baye Niass ñoom ñëpp si la Tijaan xool xam-xam bi fa nekk xeetu xam-xam yi fa nekk yëpp kenn ku si nekk bu waxee rek nga gis yoon. ñu dajale ñooñu ne leen léegi doxal leen Sénégal. waxuma la sax Sénégal mais la unité africaine bi ñuy wax sax mun na fa jóge waaw parce que lépp a ngi fi mhm. Sénégal problème bi ñu am mooy on a des institutions que nous respectons mais nu ñu fay dugalee nit ñi moo baaxul mhm. tey jii c'est des parti politiques yu organisé wu jël seeni nit ñoo xamante ne déggal nañ leen ñu leen di def ay député wala def ay sant kii promotion ñu leen bu dem représenter le parti mhm. le peuple mhm. pour représenter le kooku beneen modèle la te lii ma la wax nii crise yu mel nii mhm. njariñ la war a doon si ñun parce que bàyyi laay loolu la ñu wax nee nañu lépp lu mënti ñëw seen la bon lii bu taxawee war nañ taxaw ne mais crise bi am ni lan moo si war a nekk suñu njariñ suñu tegee loolu rek le débat day nekk léegi lan lañ war a def mooy nañu fexe ba Sénégal gox bu nekk am ku ko représenté mais na jógee sa gox ba. na jóge sa gox ba. Mm-hmm. parce que waa Tamba ñoom ñoo mën a xam seen problème. mais tey jii ministre de l' agriculture. mais ñun waa Dakar lan la ñu mën a joxagum fii est ce que amati nañ teer yu ñu béyee. man bu ñu fa demee di ko jox projet lan la ñuy mën defal xanaa maraîchage wala leen wala xanaa ay bay fleur waaw xam nga kon tey jii kooku impact am dëgg-dëgg ki nga xamante ne moo nekk si région yi moo ko moo ko mën a gis nga ñëw fekk région boo xamante ne amul ndox ngay da nga fay bay da ngay sonn nga am na région yoo xamante ne toujours ndox maa ngi fa bon tey ji bu déparé foofu jëm si yeneen ku si nekk bokk ak sa morom besoin tey ji culture bi nga mën def Ziguinchor mënoo ko def Thiès. moyens yi bokkul. bon am na loo xamante ne suñu bëggee développé wu faaw ñu def des gouvernements décentralisés. Hmm. mais pas des bureaux décentralisés maanaam tey rek ne décentralisé hmm. nañ rek bureau nag amul lii amul lële mais c'est des gouvernements purs la war a doon. Hmm. et des députés purs pour les régions. ñoom seen biir ñu élire ñoo xamante ne ñii ñooy suñuy député. Ah et là le projet. et en plus il faut que ñuy insister à l'assemblée ñu ñu ñuy xamal le budget pour le fonctionnement de l'État. voici ce qui est pour l' ñu hmm. xam te investissement bi pour gox bii la. Hmm. di nga si am temps d' hôpitaux di nga si am gendarmerie di nga si am police di nga am école. Hmm. ñu ñu def évaluation mais tant ñu ngi naan voté nañ ko rek nangam milliards ñu ne wëy wëy wëy te xamoo fa mu jëm xamoo pour fonctionnement la xamoo pour investissement la am na loo xamante ne. Euh, dañuy toog di xool rek. et puis on est tout le temps dans le clair obscur. dans le clair obscur ñu xam lan la ñuy def waaw lan la ñu def da nga dem ba nit ki day découragé. da xam ne moi j'ai bon projet. waaye bu ma demee du ma ko yóbbu su ma demee duñ ma financé. te dañu dem ba dafa nekk ci suñu xel alors que ça ça devrait être le contraire. et de financement financement projet du xaalis moo koy def. déedéet. projet yow la ba pare yow mi am projet bi. Hmm. su fekkee ne yow xamoo lan nga soxla. mais toog bind moo gën a yomb def say calcul extrapolé teg. nit da nga war a am éducation financière te ñun war nañ ko jàngal suñuy doom. amuñu ko nag muy l' épargne. amuñu ko nag un pays bëgg a développé te doo épargne doo dem. fii le Sénégal. on vit au jour le jour. on vit au jour le jour. yow million nga bëgg mënoo jën ci cent franc. kañ nga am million. yàlla baax na lañ lay may de. suba suba yàlla dafa am loo xamante ne ñun Cheikh Ousseynou daf ñu ko jàngal al Ousseynou. laahi ibnu Seydina Issa Rouhou Laye nee na bu la yàlla mayee 1000 francs li ngay jëkk génneel sa zakat parce que bàyyi laay defa ne vingt cinq pour mille mille francs yoo am da nga ciy génnee vingt cinq francs bu dee da liggéey nekk journalier suñ la fayee génneel sa zakat mhm. ndaxte loolu ngay xeeb am na ku si war a dund fi mhm. tout bu dee par semaine lañ lay fay buñ la fayee génneel bu dee par weer génneel parce que bu dee baykat bi kese war a toog trois trois mois yu nekk mu génn te yow li ngay dajale si salaire trois mois rek mën nga fay baykat bi mhm. bon yow kañ ngay génnee boo ko génnee day dimbali nit nga ñëwaat si nu mu tudd si li ma doon wax noonu sànq pour pour nit ki développé wu. Hmm. il faut que mu am culture financière mën a épargner génnee nga sa zakaat nee na la génnal lu ngay dimbalee say waajur li nga yoree sa njaboot. Hmm. li des nga denc ko. parce que hmm. nit di am projet. nit loo bëgg amal projet estimer sa projet nga xool sur ñaata temps nga koy épargner. waxoon loolu sëñ Chérif Al Ousseynou.